ci wu pour Ndeye Khady Ndiaye mm. ñun ñaan juge bi nañu leen jox dossier bi nga xamante ne c'est plus de quatre cent et quelques pages su ma juum quatre cent soixante onze pages mm. ñu ne lañ leen may ñu imprégné wu ci dossier boobu loolu yoon na leen ko may mm. ñu bañal leen ko ñu ne ñoom duñu plaider ci dossier boo xamante ne xamuñu ci dara loolu yëpp xel nangu na ko wala xel nangoo ko xel nangu na ko et effectivement noonu la waroon lu ñuy daw bay daal jërëjëf jërëjëf lan la ñuy daw bay daanu ba bañ a jox avocat wu Ndeye Khady Ndiaye ñu mën a imprégné wu bu baax ci dossier bi ñëw défendre seen jërëjëf jërëjëf dañuy jàll si mbir en matière criminelle Ndeye Khady Ndiaye ñu koy àtte di ko taxawal jërëjëf ministre la justice se permet devant tous les sénégalais jërëjëf naan mbir mi ci dañuy jàll si deuxième point bi euh, wàllu politique mu doon mbirum dialogue bi nga xam ne tey moo lëmbee au sein de la coalition Yewwi Askan bi gis nañ communiqué démb waa Yewwi Askan bi génn communiqué tey ñu gisaat beneen communiqué bu waa taxawu Sénégal une confusion est-ce que c'est nekkul divorce bi ñu doon wax noonu moom moo moom moo nekk firnde bi confusion bi. bon entre Khalifa et Ousmane Sonko. la bokk. bokk mais gis nañ tey moom mu ne mooy ba gaa yi décider wax yenn wax yi moom fekkee wu ko yooyu waaw. Ah, moom nee na moom yëgul ne. waaw ba ne moom sax moom day dem dialogue. day dem dialogue waaw ah, moom loolu moom ñoom la waa yeewi waaye man lu ma mën a wax ci dialogue bi en tant que citoyen sénégalais. Hmm. dialogue day sincère Macky Sall bu mu faloo ba léegi ñaata dialogue la def mm. ñaata conclusion lañ def ci ay dialogue yu mu yu mu mës a organiser lan la ci réaliser c'est la question que les Sénégalais doivent se poser actuellement. mais divorce divorce bi Sénégal seen réalité u sein de la de Yewwi Askan parce que sànq yaa wax ne opposition bi dañu war a benn. mais ba tey ba élection des huit mois ñu gis ne mu am de opposition bi nag suñuy bennoo ñu nekk ay opposant ñooy bennoo seen biir. Mhm. su fekkee da ngay mbubboo opposition te nekk opposant nooy bennoo ak opposition bi. y a de l' opposition de Macky aussi ya a l' opposition et l' opposition de Macky Sall. kii la loolu yàgg nañ ko nekk di wax kii ak kii ak kii. duñ tooñ kenn duñ tudd turu mhm. la distinction entre l' opposition et l' opposition de Macky Sall. loolu am na aussi c'est c'est un fait. vous voulez parler de Khalifa Sall. je ne parle pas de nom. Mm-hmm. mais sénégalais yi dofatuñu. Mm-hmm. kenn mënu leen nax kenn mënu jaar seen kaw jàll. Mm-hmm. gis nga ni ngay suivre actualité politique nu ko raw la ñuy toog chaque jour di suivre lan moo xew ci réew mi. maintenant nag dialogue bi. na sénégalais bu ci nekk toog ne Macky Sall ñaata dialogue la def ci réew mi ak yan conclusion lañ ci def conclusion yi ñu defoon ci dialogue bi lan la ci jot a réaliser lépp lu mu ci réaliser rek intérêt lépp loo xamante ne intérêt wu démocratie la daf ko jël faxat tegee ko dale malheureusement c'est ça Macky Sall. kon dialogue bi c'est pour valider la troisième candidature. troisième candidature bi su opposition bi yëpp dajaloo woon dem toog y compris ñëpp valider troisième mandat wu Macky Sall taxul troisième mandat bi jàll. parce que ça ne revient pas aux politiciens. Mm-hmm. encore une mm-hmm. ni à l'opposition ni à la mouvance présidentielle. dialogue bi wala troisième candidature peuple sénégalais bi ñoo taxaw ne loolu du am. Mhm. et la preuve mooy la mhm. quelle est la plus grande euh, euh, mobilisation bu mës a am ci histoire politique contre une troisième candidature. M23. Mhm. non F24. ñoo na ñoo na suul M23. M23 m c'est ça. non M23 F24 suul boobu boobu ay lii lañ rek ay ay ay ay turandoo lañ rek. non pour vous dire pour vous dire que ni. f keroog lu mu organisé le 12 mai à la place de la nation. Mm. li fa teew ci doomu Sénégal ci doomu aadama. Mm-hmm. musul teew ci histoire politique bu Sénégal loolu moom nag ma koy nangul. d'accord y avait des milliers de Sénégalais qui mm-hmm. étaient mobilisés pour la première fois pour la première manifestation. Mm-hmm. pour venir à la place de la nation pour dire non à la troisième candidature de Macky moo tax man je profit pour wax ak ñenn ñi. li nga xamante ne xaw ma ay naafeq laa leen di tuddee xaw ma ñu bëggut a gis. mais te mënoo wax ñenn ñi pare doo doo doo ñu naan na na la léegi waa ji waxul ne dafay def troisième mandat wala du ko def waa ji il pose des actes wax du ci du ci kàddu kese même say jëf mën nañ ci tirer conclusion ku ku mu jaral nga taxaw ne nii wii nii non ku ko wax sama gouvernement ma dàq la te képp ku wax ni mën nga am troisième mandat sa gouvernement nga promouvoir ko def ko ministre wala directeur général ku wax ni munoo am troisième mandat mu dàq la Mimi Touré ngi ni exemple la ci maître euh, maître su ma juumul exemple la ci ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne dañoo taxaw ne Macky Sall amul sañ-sañ amul droit def troisième mandat mu écarté leen Abdoulaye euh, Boun Dionne lu tax ñu écarté ko parce que dafa def ay déclaration yu clair ne ma waa ji am troisième kii ñu écarté ko complètement génne ko ci mbir mi yow mii mu jaral nga dem ba bitim réew dem France fay juriste fay ko xaalis bu weex tàll ne ko dama bëgg nga xoolal ma ndax est-ce que am naa sañ-sañu def ñetteelu mandat wala du ma def ñetteelu mandat juriste boobu bu ñuy bu ñuy révision bu ñuy def révision constitution daf ko fekke moom il est kii ba war ñu waxal kan moo war a bokk ak kan moo warta bokk réew mi bu mu daj kenn nit moo amul sañ-sañu bokk ci élection 2024 te du bokk et il s'appelle Macky Sall ñu jàll si beneen poñ euh, li nga xam ne moom mooy mbirum caravane Ousmane songo bi ginnaaw ñuy wax sax moom départ na moom moo war a dem tey fi nga xam ne mooy Kolda cette caravane ñu bëri di naan est-ce que c'est euh, daal di def campagne mini campagne pour préparer li nga xam ne balaa ngaa campagne nga nekk candidat ñun campagne ñu de dañuy gatsa gatsa. Mhm. dañuy résister. pour tënk rek waaw. Ah, ñun campagne ñu. Mhm. dañuy résister parce que li waaj a namm ci ñun. Mhm. li waaj a namm ci président Ousmane Sonko bés bu Sénégalais yi toogee seetaan ko xam man damay dajale samay valise rek xool nu may def ba dugg Gambie wala dugg Guinée dem ut fa nationalité toog fa ndax dictature mooy am ci réew d'ailleurs commencé na ko Macky Sall moom il est kii bay wax kii mooy bokk yow waroo bokk nga ne da ngay bokk par force ba pare ñi war a bokk nga ne man maay xool ñiy bokk ci ñi war a bokk. loolu xel nanguwu ko. caravane la moo ko interdit ci réew ci état de droit. wala pas encore interdit. dara interdiru ko il a le plein droit jóge Ziguinchor jaare Kolda jóge fa jaar Tamba jóge fa jaar Diourbel jóge fa jaar Thiès ñëw yegg si fii ci Ndakaam dara interdiru man dama amoon moyen sax su ma amoon moyen dëgg damay dem. caravane bi fu muy déparé man ak moom tànk ak tànk mbagg ba biir ba biir Dakar te sénégalais yëpp ñu ngi leen di lancer un appel solennel à ce que ñu rejoindre cette caravane de la liberté lu tax parce que waa ji bés bu ñu seetaanee bés bu ñu seetaanee lu mu bëgg instaurer ci réew bi kenn waru koo nangu ci réew bi te bés bu ñu seetaanee dina ko instaurer ci réew mi dans un dossier vide ñu naan ay affaire de viol ba léegi preuve amul ñu xam ne mënuñoo toppee waa ji ci viol ñu ñu naan ay corruption de la jeunesse te loi waxul corruption de la jeunesse demal ci article trois cent vingt su ma juumul trois cent vingt terre mooy wax ci corruption de mineur te corruption boobu nekkul yëkkati xaalis ji joxe mooy maanaam yàq xale ci olof mooy yàq xale di def loo xale yu bon ba mu jaaree fa yàqu mais Adji Sarr mineur la bu ñuy violé Adji Sarr bu mu naan dañ koo violé en deux mille vingt et un elle avait vingt et un ans donc corruption de mineur boobu est-ce que Adji Sarr ci la bokk mais foo jaar ñu wut porondoll ba am condamnation bu ñu bëgg a defal waaj te loolu képp kuy sénégale épris de justice waroo ko nangu tey waroo ko nangu ëllëg et nous serons là pour résister par rapport à cette dictature qui n'est plus rempante mais debout. jërëjëf cant ak ngërëm la Abdoulaye Touré ñu nga tàggatoo rek en 30 secondes ñi nga tey ñoo doon suivre. waaw mbégte ak contentement di teew ci seen kër gi muy Sénégal 7 di wax sénégalais nañ abonné bu baax a baax parce que yéen a ngi def liggéey bu ama am solo aussi ci réew mi. di jéggalu su fekkee am na kàddu yu lu ci ñagas ñu ngi ciy jéggalu seen ñi nga xamante ne mooy internet yu ñuy suivre à travers Sénégal set su dee am na lu ci jub aussi du du ci ñun yàlla moo ñu ko moo ñu ko jagleel di ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm pour que yàlla def fi jàmm foog aussi ñu ñaanal Macky Sall yàlla delloosil ko ak xel. jërëjëf waaw merci beaucoup cant ak ngërëm la doon lay doon saa ñu jàkkaarloog nga xam ne mooy mu nekkoon euh, benn. entretien par rapport li nga xam ne moom moo tourné autour des questions des questions politiques ak questions judiciaires nga xam ne mooy Sénégal leen di bàyyi euh, ba beneen yoon incha allah rabi à la prochaine fois ak yeneen débat ak yeneen sujet jërë ngeen jëf